fan yi des ci wéru safar ndar la ma fekk ak wéru gam wi yépp ba mu des ñaari fan wax ji sëriñ bi wax ay tektal la yu leer ci diir bi nga xam def na ko ca ndar te lu bare xewe fa la ca gëna siiw nak moy atté bañu ko doon atté ci kanamu jotaay bu jeng bobu ñuy wax conseil privé ci juroomi fan ci wéru septembre 1895 waye ku tuddu ndar di nga tuddaale yobbu gëñu yobbu won sëriñ bi jardin d'essai wala fi daan ko wax toolu buur foofa lañu ko yóbbu woon boole ko gaynde koo xam ne dañ koo xiifal ab diir tool koo booleeg moom ngir rek mu lor ko waaye ku ne xam na ni pexe moom mujjul sotti ku tudd ndar di nga tuddaale barab yu bari yoo xam ni yóbbu nañ fa sëriñ bi fu mel ni kër ahmadu kori seen kër liet naa yoro nga xam ne tey jii mooy fi ñu def laboratoire médical bu ndar dolli ca yeneen barab yoo xam ni sëriñ bi dem na fa julli na fa ca ndar googu magi lislaami dëkk ba dikkal nañu ko ngir rekk seere ànd gu ñu ànd ak moom seereel ko seen cofeel ak naqar gu ñu yëg ci li ko tubaab bi teg ku tudd ndar mënoo ñàkk tuddaale la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ko gase nañu la ak sa nooni jamono moo tax wane na fa bu fés ci kanamu ña ko doon àtte ne yàlla kenn la ci moom la jooyal mbiram yépp lii lépp nag doy nde firnde ci ne ndar googu la fa xew woon bari na waaye sëriñ bi de moom ci dogoom ak njàmbaaram ak xam li ko tax a jóg lii la wax ci jazaw shakur xatuuf mu wax ne daj naa ci dëkk boobu di ndar natt yoo xam ne duma ko nettali mukk ngir teggin sama digg ak yàlla ngir xam gu ma xam ne natt yooyu tarbiya rekk la sama digg ak yàlla mi nga xam ne mooy aji dund te du faatu moom mi nga xam ne fegal na ma jëfandikoo ay ngàndaay jëm ci moom bi ñu fàttali ne ndar googu tubaab bi nekk na fa diirub ñaar téeméeri at sëriñ bi door fay teg tànkam fekk na kon tubaab bi samp fa ay dëkkuwaayam sampaale fa ay aadaam ak diineen jàppale ko liggéeyub noteel bi nga xam ne moo ko taxoon a jóg ñu di ko wax colonisation. boobaak léegi nag lu ëpp téeméeri at dox na fi terewul taxawaayu sëriñ bi di wéy di riiti sunu xol ne làpp ci sunu xel benn jullit du ko fàtte li fi des nag. mooy delloo ko njukkal dellu ko firndeel sunu cant ba faw ndax moom kat loolu dong la yelloo Mama